asalaamaaleykum population Sénégal boo ñu gisee fii ci arène bi ñuy lancer appel di woo axlu làmb yëpp di leen wax ne mercredi nañu ñëw fii ci arène bi jël vaccin yi ñu mën a continuer waat suñu activité je parle au nom de tous les entraîneurs ñu ngi woo ñëpp képp ku bokk ci làmb ñu ngi lay woo mercredi fii ci arène national nga ñëw def vaccin yi indaale sa quarante ñu continuer waat suñu activité asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf suñu mbokk amateurs yi ak famille làmb ak mbokku Sénégal yëpp ak mbër amateur manager ak ñëpp ñu ngi leen di woo àllarba fii ci arène nationale dañu am journée de vaccination xeex ak feebar bi ubbi suñu làmb looloo tax ñu koy organiser ñu ngi ñaanal ñëpp bëgg ñëpp teew ci. salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal ah maa ngi jox rendez-vous ah crédit ah à huit heures nationale ah, ñu vacciné wu ñun ñëpp waaw maa ngi si woo mbokki mbër yëpp a huit heures incha allah. waaw pour ñu mën a ibbi suñu làmb ji ñu nga mën a delluwaat suñuy besoin yi waaw maa ngi woo ñëpp des ñëpp ñëw bëri yeeg ñëpp bàyyi ñu kenn képp kuy fan ci semaine Reug Reug ma la si oo nga ñëw ñàkku ñu mën a ibbi suñu làmb ji si kàttan suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Jamaïcain jeune promoteur maa ngi lancé appel ñëpp képp ku nekk ci njabootu làmb mercredi huit heures fekk la fii ci arène national ñu ñëw vacciné wu pour sunu làmb mën a tijji promoteur yi tëgg làmb mbëri bëre amateur yi seetaan ñu ngi leen di woo yéen ñëpp képp ku nekk si njabootu làmb booy ñëw na nga indiwaale sa carte d'identité nga jël vaccin bi ñu mën a continuer suñu activité ngir yàlla ñu ngi leen woo ci loolu ndax arène bi namm na leen te gëm naa ne namm ngeen ko jaageen jëf salaamaaleykum waa Sénégal waa salaamaaleykum ahlu làmb ñi ngi woo waa làmb yëpp muy mbër muy manager muy promoteur muy journaliste ñëpp ñu ngi leen di woo àllarba bu huit heures jotee ci arène nationale pour dañu war a def ay ñàkk ndax euh, nit ñi sonn nañu ci feebar bi te comme euh, ñàkk yi mooy aar nit ñi nañu ñaan yàlla ñu ñëpp ñu dem ñakku ji tàggoo ak mbas mi mu jóge fi ñëpp euh, njiitu réew mi am jàmm nun ñu am jàmm Sénégal yëpp am jàmm maa ngi woo ñëpp di woo axlu làmb yëpp rawatina sama bokku menacé yi ak sama bokk mbër yi ak sama bokku promoteur yi maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn di ko ci njiital président CNC Bira Sène ñi ngi woo ñëpp di yëgal ñëpp ni àllarba la ci bu wen bu huit heures jotee ca arène national bu kenn bu ko kenn rate na ñëpp ñëw ñu ñàkk ñëpp muy mbër mi muy menacé bi muy promoteur bi muy ancien lutteur bi muy ñëpp ku axlu làmb ku bokk ci làmb rek ñu ngi lay woo nga ñëw àllarba ñu ñàkku gratuite la ñu toog waxtaan ci teewaayu ministre des sports ci teewaayu ministre de la santé ak teewaayu sénégalais yépp ñu jóge jële dàq lii nga xam ne moo ñu solo ñu jële ko fi defe naa nun waa làmb noo ko fi war a mën a jële te bëgg nañ ko fay jële bu soobee yàlla bu buñ ci duggee bu ak euh, bu soobee yàlla ak bisimilahi rahmaani rahim danañ ci génn ak alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi woon ñëpp àllarba bu neuf bu bu huit heures jotee ci arène nationale